bala ñoo joxe micro bi ñu xool lenn ci seen laaj yi fi dajale woon ndax ñu ngi bëgg a bari heure kii dama laaj mu ne xadisu Abu Hurayra bi nga xam ne Buxaari ak Muslim ak ñeneen ñoo ko génne daf ne su imaam waxi amin na ngeen wax amin te koo xam ne sa amin dëppoona ak amin yi yi danañ ko jéggal li jiitu ci ay bakkaaram mu ne léegi nag dafa gis ne lu bari ci imaam yi nuy jiite duñ ne amin mu ne kon nan la ñuy def wala su fekkee dana ko waxi kon duñ ko dégg mu ne ndax kon ban àtte lañuy jël foofu ndax dañuy toog rek di xaar amin su fekk ñoom duñ ko wax wala duñ ko dégg wala amin bi daf nuy wàcc wala amin bi daf nuy wàcc alhamdulilah kooku ñaari riwaaye moo fi ida amana al imaamu fa amminu su imaam ne amin wax leen amin beneen riwaaya bi day wax ne ida qaala al imaamu wala dallin fa qulu amin boobu mu ngi saxiix muslim moom su imaam ne wala dallin ne leen amin su fekkee julli nga ci gannaaw nan ngay boole ñaari riwaaya bi mooy su fekkee julli nga ci gannaaw imaam di wax amin bul wax amin te waxu ko ba noppi neel tekk ba mu ne amin nga ne amin su fekkee du wax amin nag jëfandikoo riwaaya bi ci def mooy ida qaala al imam wala dalil fa qulu amin su imam ne wala dalil wax leen wax leen amin kon su ne wala dalil kooku waxal amin ñaari situation am benn imam kuy wax amin la su ko dee wax déglu ko ba mu wax su fekkee du ko wax jëlal wala daalin di nga def foofu amin ndax moom it xadis bu wér santaane na ko su fekkee imaam dana ko wax waaye nit ña duñ ko déglu itam nag ba doo ko dégg kon ba tey jëfandikoo xadiisu wala daalin bi ndax am nañu imaam yoo xam ne dañoo amin waaye nit ña duñ ko mën a dégg ndax bu wala daalin àndandoo kon amin yi imaam foofu kenn du ko dégg kon su boobaa jëfandikoo xadiisu ila qaala al imaam wala daalin aqulu amin wallahu alam kii def na ci seenu quartier am na doomu aadama joo xam ne day jaay sàngara sàngara soosee mu dajale ci alal ju bari nee mu dem ci ab ustaas di ko laaj ndax asaka war na ko ci alalam joojee kooka ne ko waaw war na ko ci de borom laaj bi mu ne ndax dagan na waajoojee muy tabax alal muy tabax jàkk ci alal jooju ak it ndax lii ko ustaas bi tontu wér na su fekkee dañuy tontu tontu lu gàtt dañuy wax ne li ko ustaas bi tontu wér na maanaam asaka war na dinaa dajale na alal boo xam ne asaka war na ca asaka tegu na ci loo su ca tabaxee jàkka dana wér xëy na lu bees la ci ñenn waaw bul fàtte ne baaxul dana wér bokkul ak danañ ko nangu léegi yi doom aadama yi fàkku te muy xaraam alal yi doom ñaari xaaj am na lu xaraam loo xam ne dafa xaraam min jihatain daa xaraam ci diggante nit ki ak boroomam xaraam ci diggante nit ki ak moroomam jooju alal mënu cee def dara delloo boroom rek sañu cee def dara ki sàcc alali jàmbur ki alal jooju mu yor ci loxoom mënu cee def lan la ko sariya wax ma delloo ko borom lu mooy dafa xaraam ci ñaari anam yàlla xaraamal na ko waaye dafa xaraam ci sa digganteeg sa morom ndax mooy moomoo ko da nga koy delloo borom kooku mënoo cee génne asak mënoo cee gasub teen mënoo cee tabax jàkk mënoo cee maye mënoo cee lekk sax delloo rek beneen bi nag dafa xaraam sa digganteeg sa borom rek waaye araamatul sa digganteeg sa morom mooy lan kii di jaay sàngara yàlla dafa xaraamal sàngara kon xaraam na diggante mu borom waaye kàccoor bi ñëw joxe bërëmam ñu jox ko butéelu sàngara mu naan ko ndax kooku amati na àq ci alal jooju sariya du ne ko delloo ko alalam mukk ñàkk na moom kon waa alal bii mu dajale te fekk daf koo dajale ci loo xam ne jenn doomu aadama amatu ci xaq waaye nag boroomam araamal na ko ci moom alal yooyu du tee mu génn ci xaqi miskin yi kon dañ koy wax asaka war na la génne ko joxe su tabaxee jàkka dañuy wax jullit yi julli leen ci waaye nag asaka jaal jàkka ja muy tabax ak teen ba muy gas ak màkka gam ajee yëpp nag lu wér la mooy lan mooy jàkka ji julli ji mën nañ caa julli seenu julli am ci yàlla ñoom aj gam aji woon te def ponk yam war a def yëpp dañuy wax ne kii de ajug lislaam wàcc na ko aji na tudd na àllaaji ci gàttal waaye nag amul aj yàlla nangulu ko amul amul yoolu aj buñ ko dencal ci ay balaasam bu ëllëgee mu di ko ko amul kon alal araam ñu xàmme leen noonu la demee wallahu taala alam kii def ne ndax afara'ayta man ittaxada ilaahahu hawaahu ci moom lay junj ki jël bànneexam nee na def ko def ko muy buuram muy yàllaam nee na ndax loolu bàkkaar bu mag la wala bu ndaw ki jël bànneexam def ko muy yàllaam ndax loolu bokkaale bu mag la wala bu ndaw dañuy xool loola lam ko jural maanaam ci ban façon la defe loolu la defe bànneexu ba kanam muy yàllaam bànneexu ba kanam ginnaaw xas na dox digg digganteem ak li ko yàlla digaloon rek kooku daan lay doon yàlla ci moom ndax mi ngi koy digal muy def di ko tere muy bàyyi yam koy digalal yam koy tere nag la ñuy xool bànneexu bakkan bi yóbbee na ko ci nanguwute dépensé ci këram tuuti la jox waa këram ñuy xiif su génnee lam yor alal mu koy caaxaane di ko jox jàmbur yi ñuy lekk muy ànd ak ñoom ci mooy yàlla di loolu bànneexu bakkanam kooku def na bànneexu bakkanam muy yàlla waaye nag fam ko àggale àggut ci sirk ci mooy yàlla la ko àggale su boobaa àtteef mooy yàlla lañ koy kii bànneexu bakkanam wommat na ko ba mu yëkkati nit ba def ko mu yàlla am léppam moom la koy jox jàpp na ni ay mbiram yépp ci moom rek la mën a baax kooku yóbbe na ko sirk su boobaa bokkaale lay bokk kon bànneexu bakkan bi kon yóbbu nit ka foofa la xam door ko mën a àtte waaye nag la cay cosaan mooy ginnaaw xas na àgg ci turu yàlla wi rek foofa ci bokkaale la koy yóbbaale loola mooy mooy aslu bi maanaam mooy cosaan bi waaye nag boo duggee ci détail bi du caagi ni ku dugg ci loolu ku ne rek lay daal di àgg ci bokkaale fii mu ne kenn ci mbokk yi nee na dafa bëgg a takk mbokk mu jigéen nee na mbokk mu jigéen moom yi waajuram mu góor daa génn àdduna waaye yaayam dafa lànk nanguwu ko nanguwul ñu may ko ko mu ne lan mooy saafara loolu solution bi solution bi mooy jéem su fekkee ne man ngeen a wax ak soxna soosu ba convaincre ba su fekkee mooy kilifa ndaw si ndax kilifa kilifteef moom balaa àgg ci yaay ci charia moom dana yàgg lool ndax su fekkee ne bàyyi ba daa génn àdduna waaye rakki bàyyi nga fa wala càmm ñi nga fa c'est-à-dire frère ñooñu ñoo yor kilifteef bi suñ ko ko mayee am na jabar waaye su fekkee nag benn kilifa nekku fa ku dul yaay ji nga xam yaay ji mooy kilifa xale yi su boobaa waxanteeg moom ba mu nangu rek wala nga bàyyi ko fa seeti keneen ñaar boobu solution rek moo am waaye doomi jàmbur kenn du ko bokkati ci moom ci koo xam ne d'accordul ci may ko loolu sharia du ko nangu ndax dagan na bind turu ko faatu ci ab tableau samp ko ci armeel ba déedéet daganul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na bind ci ay armeel bind ci ay armeel hadis boo xam ne bu wér na lan mooy wax ji gën a dëgër ci jàngu fatiha ci gannaaw imaam maanaam maamum jàngu fatiha su fekkee maamum day jàng ca suuf maanaam day yaw kon da ngay jàng yow itam comme moom su dee jàng ca kaw da ngay déglu su imaam di jàng ca kaw da ngay déglu borom bi tabaraka wa taala nee na wa ida quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun suñu jàng alquran na ngeen ko déglu te ne jàll ndax kii jàng alquran di déglu mi ngi mel ne mi ngi jàng mi ngi mel ne mi ngi jàng yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng na alquran yëpp di jàng ci gannaawam ba mu di ko xaw a dégg bi mu sëlmalee mu ne maa ni unaasaxu alquran ana ñii xëccoog man alquran ñu mu doon lu tax ñii xëccoog man alquran beneen bi mu ne man alqaari aanifan kan ma doon jàng sama am ku ne ko man la Abu Hurayra nee na mu ne bu leen jàng ci seen gannaaw imaam na ma ko yonente bi alei salatu wasalam bu seen imaam di jàng bu leen jàng moo tax Abu Hurayra ca riwaaya boobu ne fantaha annaasu an ilqiraati fi ma jahara fihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na booba la nit ñi bàyyi jàng ci lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa biral moo tax wér na ci xadis boo xam ne mi ngi ci Muwatta imam Malik euh, al imam Muslim wéral ko donte nekkul ci saxix Muslim mu ne man kaana lahu imamun fa qiraatu l imami qiraatun lahu ku am imam su fekkee ne imaam jaa ngay jàng loola mooy sa njàng maanaam su imaam jee biral loola mooy sa biral ndax imaam dëgg dëgg boo ko seetloo ci wàllu xel lu tax muy jàng ci kaw ku mu jàngal ci kaw su doon nit ñuy déglu kon su fekkoon ñëpp dañuy jàng kon julli yëpp yàlla lay doon waaye bu dee jàng ca kaw comme ñu déglu ko moo tax moo tax Ibnu Taymiya day wax ne imaam jàngalul miir yi jàngalul poto yi waaye nit ñi lay jàngal su ko nit ñi déglu ñëpp di jàng kon kay jëlu mu jàngatati ko kon mën naa jàngate suuf maanaam xel sax da ko da ko nanguwul amul woon sax ay mu ne ndax al qawlu ala allahi bila ilmin akbaru min ashirk ndax wax ci wax loo xamut ci yàlla daa gën a rëy bokkaale bokkaale dara gën koo rëy ci xeeti mooy yàlla yi waaye wax ci yàlla loo xamul daa làmboo bokkaale bokkaale daa ne ci biir yeneen nekkaale ci loolu moo tax mu rëy maanaam day mbuus moo xam ne bokkaalee nga ca waxal yàlla lu amuta nga ca waxal yonent bi lu amuta nga ca mu xeeti mooy yàlla yépp nga ca biir bokkaale yu tekkaale ca biir kon loolu moo tax mu rëy waaye jëmmi bokkaale ci boppam bu dee dañ koy xool moom mooy yàlla mooy li ci gën a rëy kii nee na dafa dégg ñu ne Suleymaan alayhi salaam mooy mujj dugg àjjana ndax mu tax mooy dafa bari woon dafa bari woon alal fii ci àdduna ba noppi yàgg fi mu ne ndax loolu wér na déedéet wérul loolu moom wérul saxul ci benn nas bi wax ne Suleymaan alayhi salaam mooy mujj dugg àdduna ak yonent la ku baax la ku tedd la ku nekkoon ci digali suñu borom tabaraka wa taala dem yonent comme yonent yi ci des ndax dagan na toog ci biir ay armeel dama xamul lu jubli ci toog toog bi ala kulli xaal dagan na su fekkee ne aajo moo tax mu toog fa lu dagan na comme li ñu siwul mu taxaw bu sonn diggu àgg suuf loolu lu mën a nekk la ndax dana war ci nit ci suba bu nekk mu ñëw ci ñaari waajuram nuyu leen comme que ñoom ñoo bokk génn kër ndax day war ndax obligatoire la ci moom suba bu ne mu ñëw taxaw fi ñoom ne leen salaamaaleykum nuyu leen si defal ci rafetal jëme ci ñaari waajur te la bokk te borom bi tabaraka wa taala daf koo digle digal na jullit bi gannaaw bu joxe àq boromam na joxe àq ñaari waajuram rafetal jëme ci ñoom loolu nag ci la bokk ndax xëy sa ñaari waajur nekk ci kër goo xam ne ña nga ko de nga xëy ne mott dem sa liggéey yow ñu naan ana diw ñu ngi fekk nekku fi ñu ne ah moom ko dem na liggéey ñu wax ne loolu rek la ñuy am ci yow kooku musiba la kon trigo yi nuyoo jël sa xeet nuyoo bi masla wax ci seen kanam ñaari kàddu ñetti kàddu door a fab sa saal dem liggéey loolu ci lu rafet la rafetal jëme ci ñoom ci la bokk ñooñu kenn du leen décci ngeen gis leen suufeel ñetti laaj la laaj waaye bu bu jëkk bi li tax ma mujjee ko mooy jëf da ciy tegewut te dañuy bëgg laaj yi nga xam ne jëf da ciy mu ñu gën koo fonk day laaj bërëb bi ñuy wax baabil fan la nekk ñu ko xamal ne iraq la nekk iraq fa la baabel nekk ndax su jëkkër ji wala sartonte ak jabaram ne ko jamono ya muy takk koy takk keneen li fi bi nga ko yor mu ne ndax dagal na mu mu firiwaat loolu ma dem ba yàgg mu mu dellu gannaaw ci loolu ah déedéet suñu këllëre wul gis ko def ginnaaw loolu la këllëreente woon ak moom li feeg mu ngi yor ndaw soo fee mënatul takkaat keneen ci kaw su yàlla dogalee ñu tàggoo nag bu ko neexee ku takk ñaar wala ñett wala ñeent moo xam waaye ki mu këllëree doon loolu moom da koy sàmm moo tax këllëre boobu bala nga def na ko seet bu wax a baax léeg-léeg ak yàkkam ci wala ak ñàkk a xool bu sori mooy tax nit ki def bu duggee ba ca biir nag door a réccu lu ma ta bàyyi xel la waaye nag ñu xam ne kóllëre googu ci lislaam parce que bokkut ak li ko luwaay yi di wax ak ñoom le ndax dañuy wax ne ñoom boo xasee fasante yi nit kóllëre li ñuy wax monogamie mooy duutoo mën a takkati lu ëpp benn lu faaw soo tàggoo woon ak kooku itam loolu moom amul ci lislaam mu ne dafa am ci nit ñi ñoo xam ne daal seen liggéey mooy dañuy jaay ay drogue yu mel noonu suñ ci jàppee kenn ba mu nekk ci yoon nit ñi leen di seet si di leen muñloo naan leen lii dogalub yàlla la yu mel noonu muy laaj ndax loolu dogalub yàlla la wala moom moo ci tàbbal boppam ala kulli xaal yaar yëpp la moom moo ci tàbbal boppam waaye nag dogalub borom bi tabaraka wa taala dañu nag dogalu borom bi tabaraka wa taala diisu ko laytoo pour di def lu bon maanaam diisu jël dogalu yàlla daf koo lay ngir bëgg a defe lu bon moo tax Omar ibn Xattaab ba sàcc ba ñëwee mu ñu bëgg a dagg loxoom mu ne ko xanaa sàcc ma ci dogalub yàlla da ne ko mu mm, koy ci dogalub yàlla nga sàcc waaye mu ne itam dañuy dagg loxo ci dogalub yàlla kon mbir mi noonu la demee ndax jigéen dagan na muy sol pantalon ci biir néegam dara nekku ci insha allah julli ci néeg boo xam ne daa am ay photo wala ay téere téere yu ñuy takk ay boggalte dinañ ko jànge bu fekkee photo lu am ruux la loola jaaduwut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee yi duñ dugg néeg boo xam ne koto daf faa nekk maanaam malaayika yi yërmaande yi leen ci borom xam-xam ñu ne malaayika yi nekk ci yoolu jaamu yàlla yi kenn wax ne julli bi wérul waaye jullit bi li muy ragal mooy ak julleem yi bañ koo nam parce que jaamu yàlla ñaari pàq da koo séq jaamu yàlla bi wér na ak jaamu yàlla bi nangu nañ ko julli bi moom soo defee charte ya njàpp maa yewaar yëpp ba àgga da ngay wattandiku yii feeñe nangu jaamu yàlla yooyu bokk na ci nga jullee ci béréb boo xam ne photo dafa nekk photo bu am ruux day tax malaayika yi yëkkati yool ba ñooñu duñ ko dugg te suñ ko duggul sax yool bu dem ay téere nag daa war a nekk sax ci néegu jullit waxuma laa mu di ko wékk nag dafa jullee ñu mën a moom jotewutal dara jullit bi lu baax jotewul dara du baax jullit bi du lu baax laaj bi ci jotaay bi weesu woon na daa ku ko posé woon jamono yooyu ci internet bi la nekk woon dafa laajoon lan muy at teg salaatu tarawih ci jàkka ci lu dul ramadan ko defee tam par samedi rek samedi ji jot daal ñu daje def salaatu tarawih te fekk koor moom laa fekk bi daal kooku moom moom bi daal bu ñaaw a la boo xam ne amul dalil kii moom laaj la boo xam ne moom ci problème yi nit ñi dund ci kër yi rek la nee na yaayam daal daf koy xëyal fu mu toll ay problème digganteem ak ak jabaram nee na nag léegi dafa mujj dem luye ji euh, ci beneen bërëb dëkk faak soxnaam mu ne yaayam it nag ba tey mu continuer mer ci toxu ko mu ko ala na jokkoo ak ci moom te toog foofee mu dëkk ndax mu ëpp jàmm te it mu kàllaf ginnaaw xam na def ba yor soxna lay cosaan mooy daa war a nekk ci kër itam dëkk ci kër dëgg la nag suñu aadaat suñu cosaan dafa miin magum jëm mu yor soxnaam nekk ci kër baayam wala ci kër ndeyam loolu lañ gën a miin waaye loolu toujours moom ay problème da cay am moom kon su jàmm amee ne day continuer dëkk ci sa sa kër famille soo gisee ne nag mënoo yor sa soxna te coow amul digganteem ak sa yaay wala sa baay seetal feneen soo dëkkal sa soxna ba noppi di rafetal jëmi sa ñaari waajur yéen ñëpp ngeen nekk ci loolu mooy jàmmale mi mbokk bind na benn leetar boo xam ne léeg-léeg maanaam léeg-léeg jëfandikoo ak njabar mu ne ndax dagan na may lekk aw ñamam su fekkee ne daf ma koo jox ak nan laay jëflanteeg moom waaw loolu de mooy li ëpp solo ak jabar moom li muy jëf jëflante bu fekkee wér na ne njabar lay def kooku xam nañ ne kéefër la dëkkandoo nag boo ko amee mu wóor la ne kii li muy def xeetu kéefër la na ngay jëflanteeg moom lu ma ta xam la mooy tàmbalee ci laayante biir ak moom xamal ko lii muy def lu mu doon su fekkee ne sa kàttan àgg na ci loolu yow am nga capacité mën a wax ak moom mën ko laaye biir ba mën a dellu gannaaw ci loolu lu baax la su ko mënul jar na nga wuti ak wall ak wall mooy ku la jàppale beneen boroom xam-xam wala jeneen dëkkandoo joo xam ne xëy na doyloo na ko te wóolu na ko te kooka boroom pas-pas la nga ne ko man de wóor na ma ne diw sàngam mi njabar lay jëflanteel te yow xam naa ne am na fu mu la teg war ngaa wax ak moom ci loola su ko defee kooko jóg wax ak moom loola jëflante ba foofa lay foofa lay aju waaye wax jotu mooy ndax la muy fàggu ci boppam mën nga caa lekk wala mënoo caa lekk saxoon na ne lépp loo xam ne nit ki daf koo fàggu ci alal joo xam ne dafa xaraam ci xaraam goo xam ne digganteem ak boroomam la alal jooje su ca nit ka jotee mën na caa jëfandiku mën na caa maye mën na caa def loo xam ne ay jëf la donte nag du ca am tuyaaba ginnaaw dafa xaraam waaye yow mi mu ko jox du xaraam ci yow waaye nag ci wàllu laayante biir am leen teeg moom loo xam ne day tax mu di la jox ci alalam ngay lekk moom loola lu mata a wattu la lu dul su fekkee ne dafa doon da nga caa loru pexe comme su fekkoon ne sa waajur la te amul feneen foo jëm ci li muy fàggu rek ci nga mën a lekk kooku mënoo ci dara amul pexe kooku mooy tontu laaj bi ci tegu ndax daf ne man jigéen laa joo xam ne damay dund euh, sama yaay laa nekkal te yaay ji nee na moom day jabar mu ne ndax damay continuer dëkk ak moom te xam ne wërsëg woowu muy fàggu ci la ñuy lekk te it awma benn pexe ginnaaw pexe amul moom kooku dara euh, mëne su ci dara waaye bul ko bàyyi continuer su yaay jooju nga di ko jiima laay biir si kem kàttan képp koo xam ne yaakaar nga ne dana ca man dara it na nga dimbali ko ay pexeem ndax yàlla mën koo defal tawfiix ba balaa génn àdduna mu bàyyi loo xam ne xeetu kéefar la koo xam ne day xabal nit ki sawar wal yaasu billah kii dafa wax ne moom tradi traduire mooy liggéeyam traducteur la xam naa nee na da ko jàngee ci baayam tarjama maanaam traduire daal ci papam la ko jànge waaye nag nee na nitug tariixa la koo xam ne eh, damay ànd ak moom daal di liggéey léeg-léeg nag mu traduire loo ma ay text yoo xam ne ay biddaa ci nekk ak yoo xam ne day ñot di nit ki jëme ko ci ëgg réer wala muy yàq pas-pas nee na sax léeg-léeg bokkaale nekk ca mu ne su fekkee ne dama bañ ci lool yi mu may traduire loo moom de day mer lool mu ne ndax li muy laaj ndax moom nii su fekkee ne dafa mer maanaam su waajuram bi meree ci bañ googu muy mer ndax loolu dañ ko dañ ko day dugg ci uququl waalid maanaam mooy ndigalul sa waajur ndax da cay dugg ak it ndax dagga nangu di ko topp ci lool yi mu koy digal euh, mer boo mi muy mer boo ko gam-gamlee maanaam boo ko comparé ak mer mi sunu borom tabaraka wa taala di mer ci soo ko jàppalee ci ak njabar merum waajur bi mu woyof lay doon bindu la yorul sa wërsëg yorul saw fan boo faatoo du moom moo lay dekkal du moo lay laaj du moo la yóbbu fen da ngeen di dawante bu ngeen faatoo kon bu mu yàq sa diine fii dëgg la nag waajur la waajur lislaam dala ne bu doon bu dul woon ab jullit sax wa saaxibhuma fi dunia maarufa la wax ci mbiri àdduna yi na nga ci ànd ñoom ci aw yiw waaye nag bu mu la tàbbal ci bokkaale bu mu la tàbbal ci biddaa bu mu la tàbbal ci ak réer su la santee loolu lànkal bañal nee ko mën naa laa traduire lu nekk ba mu des biddaa wala loo xam ne bokkaale da caa nekk la ne lu mën a doon nag lu baax mën naa ca jàppalanteeg yow waaye du ma dimbalanteeg yow ci loolu loolu nag xam ci yow mu leer nañ mu dimbalanteeg yow ca la ca des loolu mu mu bàyyi ko ndaxte kenn du topp mbindeef ci loo xam ne merum sunu borom tabaraka wa taala la ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li maxluqin fi maasiyati alxaaliq kii nee na day seen baay dafa am soxna soxna soosee nee na ñoom xam nañ ne ab njaalookat la nee na su fekkee ne seen baay boobu nanguwu ko fase nun ban taxawaay lañ si war a am ala kulli xaal wax jii mu wax wax ju rëy rëy la yoo xam ne wareesu ko teg ci kaw njort wareesu ko teg ci kaw lu lënt waaye ci kaw lu leer naññi naññi la war a teg tege su tegewut ci lu leer naññi nga xam ne dañoo gis ndaw sa ci boppam muy njaaloo ñu fekk ko ci bérébu njaalookaay ba mu wóor de mi ngi njaaloo ñu teg ci seen bët su fekkee ne demewul noonu sooy boobu mu tuub lii mu wax nii te daw te génn ci wax ju mel noonu jullit bi du wax ci nit koo xam ne ab jullit la wax ju mel nii tuumaal ko ci njaaloo lu dul dafa teg bëtam ci kawam fekk mi ngi njaaloo moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne même su doxoon ba dugg ci néeg fekk góor ñëw sàngu ak jigéen joo xam ne jigéen yi jàmbur la ñu bokk sàngu ci mennum mbalaan amul droit ci génn dañ doon yàlla ñoom ñaar sañu ko bu ko defee dañ koy dóor sharia da koy caw kon yaqin amul foofu kon yaqin lu jafe-jafe foofu la su fekkee amu ci yaqin bu mel noonu sooy boobu mu tuub li mu wax su fekkee nag am na ci yaqin bu mel noonu kon jaadu na euh, mu sóobu ay bunt ba mën a waa waajuram yi nga xam ne mooy seen baay ba mu xam ne soxna soo si mu takk day jëfandikoo lu mel noonu moo xam ne nu mu ko koy mën a junje ba mu xam ko doonte day bind ab leetar boo xam ne ci turu keneen lay doon te fekk la muy wax dëgg lay doon wala mu bañ a doon ci aw tur sax dind ko leeral ci ay mbir yu aju ci yooyu ci loo xam ne wóor na ko ne lu am la euh, fexe ba leetar boobee mu jot ca su boobaa loola ci xeeti soppi lu bon lool yi la ci kem kàttanam su boobaa jaaram dana wàcc ca loolu waaye nag na wattandiku mbir mu mel noonu ndax eh, yi fi dox ci ay mbir daa bari ndax soxna soosu niñ ko déggee moom bokkul ak yaayam kon kon wujju yaayam lay doon te foofu am na yu fay dox ci diggante yu bare bari yoo xam ne léeg doom ji ak faralug yaayam dana tax muy wax ci wujju yaayam yeneen i yëf yoo xam ne amaana tëddeewul noona wala muy doon yoo xam ne ci yaayam la koy déggee moom ci boppam ndax lay dox diggante ay wujj léeg-léeg su fekkee dunduñu seen diine nañ ko war a dundee lay dox seen diggante mën na koo déggee ci waayam da ci yaayam moom ci boppam daal di jàpp ne lii nii la demee fekk sharia tëriwul mbir yi noona sharia tëriwul mbir yi noona mu ne kii dafa mu ne ndax jabar bi mooy nekk kilifa doomam ji jigéen suñ ko ne maye maanaam waliyum ndax moo koy doon ñu xam ne euh, mbir mu aju ci ab jabar ak atte ko ne jabar la ak génne ko ci lislaam mbir moomu wàllu qadaa la maanaam atte sharia moo fay nekk di atte ba jël nit ki enquête ko ba xam ne kii ak njabar lay def mu tuubloo ko mu lànk bañ a tuub mu atte ko ne ab yéefar la su boobaa dafay tas jabaram yam yoroon tañ doon ay jullit su boobaa doomam yam amoon duutu donnante ak ñoom jege ñaaleem ya doon ay jullit duutu ñu donnante su ci kenn faatoo su boobaa duutu nekk kilifa ak doomam ji jigéen waaye nag mbir mi demewul ne da ngay jekki ba mu yàgg nga gis góor guy dugg ak génn rek ñu naan ci ay xar nga foofu lay def nga daal ne kooku doonatul kilifa ak doomam déedéet mbir mi du noonu sharia ci boppam mooy atte taxam xam fii ne fi mu toll nii wàllu atte ci wàllu sharia moom Euh, luñ soxla woo la di ñaan borom bi tabaraka wa taala delloosi ko waaye nekku fi maanaam nekku fi dafa laaj mu ne atteb jigéen bi nga xam ne day sangu ca ngaayul farata wala mooy ca ngaayul farata mooy boo xamee ne dafa gis régalam ba pare wala bu fekkee dafa am janaaba te fekk dafa léttu nan lay def ala kulli xaal na fexe ba ndox mi laal kawaram gépp bu fekkee ne léttee mbindoona noo xam ne suñ ko firiwut kawar gi du dugg ca biir kon nañ firi létt yi ndax kawar ga mën a dugg ndox ma mën a dugg ca biir ci biir karaw ga wala kawar ga su fekkee ne nag nañ ko takkee teewul ndox mën na caa dugg kon na ca sotti ndox mu baree bari rek te bës ko ba nga xam ne wóor na ko ne léttam yooyu fépp a tooy su boobaa cangaay la loola dana doy kii day wax ci wàllu xutba yi muy wax ne ndax wareesu ko mën a def lu mel ne ab téere daal ndax nit ñi jëriñu ci xëy na loolu mënees na koo xool ca kanam incha allah ala kulli xaal ñu ngi xalaata ubbi site boo xam ne lu bari ci xutba yi dana nekk ci biir incha allah ku ci bëgg a jëriñu mën caa jëriñu bi idnillah mu ne nan la ñuy joxe asakay alal ndax ñaar téeméer yu nekk vingt cinq lañ cay joxe wala ok oh, ñaar téeméer yu nekk vingt cinq lañ cay joxe waaye buñ ci déggee ne boo amee ñaar téeméer nag asaka lay daal di war am na ñoo xam ne dañoo defe ne boo amee mille francs rek asaka war na la da daal di war a génne vingt cinq asaka ñaari sart ñooy daje mu war la benn bi mooy na mat nisaab nisaab mooy am na som boo xam ne bu ko matul yow asaka waru la som boobu li ca gën a diñ ko mujjee laaj comme toll ndax dañ koy nattale ci or quatre-vingt-cinq grammes yi or mi ngi toll woon ci cinq cent dix mille francs cinq cent dix mille francs daal boo ko amee kon kooku am nga ni nisaab beneen charte bi nag mooy mu nekk ci sa loxo ba waxtu ba nga ko amee woon delsi maanaam diggante bi daal ñàkkoo fi cinq cent dix mille francs ba waxtu wa delsi na ci déwén su boobaa nag ko war na la moom lay ware mooy deux virgule cinq pour cent deux virgule cinq pour cent mooy mille francs yi nekk vingt cinq wala multiplié par quarante boo ko multiplié par quarante moo la jox deux virgule cinq pour cent mu daal lay jox asaka yi laaj yi xaw naa bari lool te defe naa waxtu bi jot na waaw boobu moom dafa nuroog bi jàlloon léegi diviser somme bi nga yor yow boo ko diviser par quarante loolu moo la jox deux virgule cinq pour cent maanaam loolu mooy asaka ja daal résultat ba mooy asaka ja kii mu ne ndax ki ki gëm li ko jabar bi wax da jaadu ci moom mu yeesalaat ngëm yàlla am on kay da koy yeesalaat ndax yonente bi sallallahu loolu kéefër la lépp loo xam ne sax na ne def ko téeméer la bu ko nit ki defee te fekk ku gëmoon yàlla dana beesalaat ngëm yàlla am mu shahadatu an laa ilaha illallah wa wa sallam laaj foofu rek suñu direct yooyu ala kulli xaal laaj bi tontu nañ ko ay yooni yooni yoon mi ngi ci kaset yi mooy bayaan bi nga xam ne dañ koy def bisu ajjuma mu ne ndax bi daal wala déet dama leen di wax ne jàkka yi ñaata ñaari xaaj la fii am na jàkka yoo xam ne nit ñi fay teew si di julli si ajjuma duñ fa jële dara ci ci xeetu xutba maanaam imaam ja day ñëw jàng loo xam ne xamuñu lu mu doon mën naa doon lenn loo xam ne saabu ñëwee bu nekk moom lay jàng di ko wax ci kàllaama goo xam ne nit ñi xamuñu ko su ko jàngee rek daal di dem yoonam jàkka ju mel noonu damay wax ne jullit yi suñ fa noonu te nar a dem ak seen loxoy kese balaa imaam jaa ñëw su mënee am ku taxaw wax ak ñoom loo xam ne dana leen jariñ loolu de jàpp naa ne lu am njariñ la saa bu ma ko waxee bu ne nag damay wax ne ijtihaad la maanaam nag mën naa doon njuumte waaye jàpp naa ne loolu war naa baax waaye nag jàkka joo xam ne ña nga fay xutba xutba boo xam ne nit ña dañ fay jariñu la wax ña koy dégg kooku moom amul benn dalil wala firnde wala sax benn illa boo xam ne mooy tax nit di ñëw di xutba waat beneen xutba bu jiit kon kooku ci ñaari jàkk yooyu fi lañ xam ne jàkk ji nga xam ne daal xutba bu nit ñi jëriñoo nga fa amut illa bu keneen di ñëwee di am leneen lu muy defaat su fekkee nag nit ña dañ ko nar a teew ba dem te duñ jëriñu te am na ku fa mën a ñëw jëriñ nit ña kon na leen jëriñ balaa imaam a ñëw wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain